والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام لإذاعة سفينة اف ام في 98.2 أخوكم في الله وحبيبكم الإمام أبو بكر مبوج يسلم عليكم ويقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante borom bi tabaaraka wa julli ci soppeem bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saabam ak mboolem ñi nga xam ne dañu teg woon ci yoonam ba bisu tey yéen mbokki jullit yi déglu Safina FM ci 98 point 2 seen mbokk seen xarit imaam Aboubacar Mbodj mooy ñëw di waxtaan ak yéen ci émission makaarimul axlaax di leen jégglu nag ci retar bi nga xam ne xam ngeen ne rek problème technique yi moo ko indi ñoo ngi leen di jégglu di leen ñaan borom bi tabaaraka taala yal na yàlla defal leen koor gu ñu nangu ñaan yu ñu nangu te bépp jëf boo xam ne jëf nañ ko ci itam ci xasanaat rek yal na ko yàlla ful te booleel ñu ko ci suñu téere jëf xam ngeen ne tey suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a def ci point boo xam ne bu am solo la xëy na sax ñu bari bàyyiwuñ ci xel muy taarix di xaswatu badrin al kubra muy xare badar bu mag bi nga xam ne képp koo xam ne ab jullit nga rekk walla daanaka mën nañu wax ne ñu dul jullit sax xam nañ xare badar ndax niñ koy faral di wax ak di ko tudd ba nit ñi mu dugg ci seen nopp xam ngeen ne xare badar ma ngi xewoon ci man nañu wax ne sax bisu tey bii ci ñenn ñi waaye ñenn ñi bisu suba ndax ma ngi xewoon ci fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci ñaareelu atum gàddaay mi muy xare boo xam ne bu am solo la won ndax man nañu wax ne moy xare bi gëna a ci xare yo xamne islam defon nako yonent bi sallallahu alaihi wasallam jité ko ndax xamen nga ci xare bobu itam ci la dooley islam feñ ci mboolem gox yi nek ci kaw aduna ak leram xare bobu nak mën nañu wax ne li nga xam ne moom moo ko waraloon mooy xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa ak i saabam bi ñuy génne màkkatal mukarrama jëm madinatul war booba coono bu rëy lañ leen tegoon sonal leen indil leen jafe-jafe bu nekk ci kaw suuf xatal leen ca màkk ba ñu xam ne ñoom ñii daal wax dëgg yàlla xajatuñ ci màkk ñu génn màkk dem na war pour jéem a rawale seen bakkan waaye itam rawale seen diine xam ngeen ne xare boobu ma ngi am ci ñaareelu atu gàddaay gi ma ngi amoon itam ci fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ñoom ñi ngi génn ci maanaam weeru koor bi bam amee fukki fan ak ñaar génn jëm badar xam ngeen ne badar buñ ko déggee mooy abu sufyan xam ngeen ne comme ñoom yonent bi ak i saabam ba ñuy génne makka daw seen alal ak seen lépp lu ñu amoon ñee confisqué ko téye ko ñoom itam ñu dégg ñu ne abu sufyan day jëre na am njëgg mu rëy maanaam fanweeri giléem yoo xam ne yëpp dafa sëf war a traversé ñu yonent bi sallallahu alayhi bi ko xibaar bi dikkalee mu ne ñoom kat comme ñee dañ leen a nangu seeni alal ci force dàq leen kon ñoom itam nañu jéem a kar maanaam Abu Sufyaan muy seen dédommagement maanaam ñu dàmpaayoo ko ci seen alal ja nga xam ne ñëla téye woon nañ ko loolu daal moom mooy sabab bi yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam génn xam naa tey dañuy talxiis rek maanaam émission bi ndax waxtu wi dafa xat waaye bi nga xamante ne loolu xew na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ak ay ansaar maanaam mooy ñi nga xam ne ñoo dëkkoon madinatul munawwar ndax ga avant xare batar man dañu japp ni ñom de mësuñu genn anda ak yonent bi ngir sax dem xexi boba julit yi nekkon na ñetti témèr ak juroom ñett fuk ak juroom manam 385 waye ñepp nak téwuñu ca waye ña nga xam dañoo toogoon baja dem yitam te ay ngant tiye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bégal len ci ak pay ñoñu sax bokku na ci Ousmane ابن عفان رضي الله عنه خينا بون ديمي با سي بير داناي واخ لان مو تيوون مو تيو تيا خريبا ندا خام نين رقية دوم يونت بي صلى الله عليه وسلم موي سخنام تي بوبا دا فا فيبر فيبر بو خام ني منو كو باي غناو دون كو تخاو مو تخ موم تيويول غزوه بدر جوليت يي با نيو ген نيك نيت تيمر اك لو تك نيت فاس كيسه لاني امون فاس بن بي مقدار موكو موم bi ci des Zubayr ak bi ci des Marsit alxanawi te itam yoroon nañ maanaam juróom-ñaar fukki giléem bu fekkente ne yéefar yi nag ñoom ñee bañ nekkee ñetti téeméer ak fukk ak ñett yéefar yi booba ñoom nekk nañ maanaam junni maanaam mille personnes combattants ñee amoon nañ ñoom ñu am maanaam téeméeri fas jullit yi yoruñu woon benn fas waaye itam jullit yi amoon juróom-ñaar fukki giléem maanaam soixante-dix yéefar yi ñoom amoon nañ sept cent maanaam giléem xam ngeen ne kon wax dëgg yàlla ñaar ñii doole yu tolloowul pour ñu mën a jàkkaarloo pour xeex bis bi nga xamante ne nag xeex bi commencé na ma ngi nekk bisu àjjuma nekk fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor génnug yonent bi sallallahu alayhi wa nag mooy niñ leen waxoon booba dafa bëggoon maanaam dogale njëg mi nga xam ne moom la maanaam Abu Sufyan doon jëlee Sham pour yóbbu ko ngir ñu man koo dàmpaayoo seen alal yi nga xam ne moom lañ nangu woon waaye loola sax nag mujjul antu ndaxte dafa am ay espion yoo xam ne ñëw nañ gaaw ko xibaar mbir mi ba nga xam ne Abu Sufyaan ku yewwu la mu dévier maanaam njëgg ma waaye teewul nag loolu xare boobu am xam ngeen ne yonent bi sallallahu wa sallam bi nga xamante ne loolu xew na moom wa shawirhum fil amri la yàlla daan wax ak moom toujours mu daa di xalaat ne dafa war a diisoo ak saaba yi moom lan lañ xam ci loolu nga xam ne moom la bëgg a def ndax yàlla daal dël na ko benn ci ñaar yi benn dana jot ci njëg mi wala boog waa Quraysh dana leen gañe dana leen duma dana leen jàpp bu ko defee bi nga xamantene ne waxtaan naag ñoom idée bi nga xamne ne tax mu bëgg genn dogalé abu Sufyan, abu bakar da di jog wax xalaatam mu rafet lol umar yitam jog wax xalaatam mu rafet lol miqdad ibnu umar moom itam da di wax ya rasulullah imdila lima amaraka Allah, fa nahnu maaka wallahu wallahi la naqulu laka ma qalat banu Israel ila li Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun miqdat wax yonent bi ne ko sallallahu alaihi wasallam dema rek wey ci lila yalla digal ñun day na la wóor ne li nga xamne musa mom la ko ay banu Israel waxon ba mu jamar jàmmaarloog fir'auna ne ko ah yow musa dal demal nga xex yaag sa borom nala sa borom jappale ñun ñoo ngi toog di la xaar xam ngeen ne loolu du ndimbal waaye Miqdaad ne ko ñun day duñ la wax lool dañ la wax idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna maakuma muqaatiluuna fa wallazi baasaka bilxaqi law sirta bina ila barki lximaam yani madinatu lxabash la qaalat naa maak min dunihi xatta nablugahu فقال صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير موتاخ موم مو نيكو moom mu ne لاج لاي واخ موي داني اندك ياو اك سا بوروم ak yow ak sa boroom ñu ànd ak yow ak sa boroom ñun ñépp xeexandoog yow ñoo ngi lay waatal ci ki nga xam ne moom moo la yónni ci dëgg bu fekkente ne day da nga doxoon ak ñun ba maanaam benn dëkk barkal xaymaam ma nga ne ba Habasha ba Éthiopie bu fekkonte ne sax daga nga jiitu danañ topp ci yow ba keroog ngay àgg échopi duñu dellu mukk gannaaw te duñ la wax mukk ne la yaag sa borom dem leen yonent bi daa di koy ñaanal rafet lu waxam daa di wax ne ayyuhan naas bon booba lam ci jublu mooy ansaar mu ne leen wallahi laka annaka turidu ya rasulallah qaala ajal qaala saadu faqad amanna bika wa saddaqnaaka wa shahidna anna ma jita bihi huwa alxaq wa aataynaaka ala dalika uhudan wa mawaathiqana ala sam'i wa taa famdi ya rasulallah bi nga xamante ne wax na loolu rek mu daal dina yéen nit ñi nee na boobu ñu xam ne ansaar yi la ci jublu mu nekk muaz sa ibnu Muaz daal di ne ñokket jóg ne ko yow yonent bi dafa mel ne ñun ansaar yi maanaam ansaar mooy ñi dëkk Madina te yonent bi fekk si woon leen daa mel ne ñun nga ci jublu sa wax ji mu ne ko aha kay mu ne ko daanaka jërul sax ngay wax dara ndax ñun dañ laa gëm te dëggal nañ la te itam seede nañ la lii nga ëndi muy diine islaam dëgg la te itam nag dañ laa nangul dañoo dogante woon ak yow kullëre ci lépp loo xam ne wax nga ko danañ ko dégg te looñu sant danañ ko def kon nag yow yonent bi bul wax dara demal rek wéyal ñoo ngi lay waatal ci ki nga xam ne moom moo la yónni bu fekkoonte ne maanaam géej gi da nga koo xuus ne ñu ñëw leen wallahi danañ xuus àndandoog yow te kenn itam du des gannaaw te itam amul kenn koo xam ne maanaam tey jii bañ naa taseek ab noon tey dii danga xam ne day bu ñu taseek maanaam noon yi waa Quraysh yi na la wóor ne da fi fekk ay jàmbaar yoo xam ne yu mën a muñ lañ waaye itam day bu ñu taseeg ñoom yitam da nga xam ne ñun ñii li nga xam ne moom lañ jaayoon teeg yow dëggu nañ ndax ñun islaam jaral nañu joxe suñ bakkan te itam wéyal rek mën na am sax yàlla dana la won loo xam ne ci ñun loo xam ne dana tax sa xel dar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam wax jooju nga xam ne saadu wax na ko daa di koy daa di gën a sawarloo yokk détermination mu daa di ne siiru ala barakatillah kon neg dox leen ci barke borom bi tabaraka taala te wabshiru fa inna allah qad waada nii ihda taifatayni maanaam dox leen wallahi yàlla won na ma ne dël na ma ne benn day danañ ko am benn danañ duma waa Quraysh walla boog benn maanaam danañ jot ca njëgg moomu nga xam ne moom moo ñu tax a jóg mel na ne sax maa ngi jàkkaarloog maanaam defet bi nga xam ne ñoom moom lañ nar a am ak toroxal gi leen nar a toroxal bi nga xamante ne yonent bi dem na ba jege Badr mu bàyyi maanaam Quraysh ñoom itam fekk ñoom it ñëw nañ ba jege maanaam utba ibnu rabia wa axuhu sheybat wabnuhu lwalid daaw ila al mubaaraza fa xaraja ilayhim fityatun min al ansar maanaam banu waa xurayshi utbat ibnu rabia moo njëkk a génn ak cheybata mbokkam ma ak ibnul wali ibnuhul walid ñu génn xam nga bu xeex daan am ñetti ponkal dañuy génn ku ci nekk ñu kañ la tagg la nga wone ne ku ma ñemee na ñëw bi mu ko defee am ay xale ci ansaar yu génn ñu ne yonent bi déedéet ñi taxuñu ñoo jóg wool ñu ñoo xam ne suñuy nawle ñu tolloog ñun yonent bi sallallahu alayhi wa ci mbaax gi mu tànn ay mbokkam daa jël ubaydatu ibnu xaaris ibnul muttalib ne ko jógal wax xamsatu moom itam baayam bu ndaw ne ko jógal aliyun ñoo bokk baay te goroom la moom it mu ne ko jógal ba mu ko defee mm, ku ci nekk nag daa di war a jàkkaarloo ak kenn fa baaraza xamzatu shayba shayba xamza daa di jàkkaarlook moom naka mu daa di koy rey aliyun itam jàkkaarloog walid ñu tampoo rek mu rey ko ubayda ak ba ñoom ñu daje ñoom itam ku ci nekk dóor sa morom ba daanaka xaw nga koo làggal maaye bi nga xamante ne noonu am na Hamza ak Aliyun daal di ñëw ci ba jekkali ko ñu jël seen Ubayda yóbbu ko waaye Ubayda bañ ko tegee ca maanaam jam-jam yu metti yooya ca la daa dee génne àdduna ba mu ko defee nag xam ngeen ne léegi ñett ñi nga xam ne ñoom ñooy njëkk a taxaw jàmmarloo ñee defet daa dina fay feeñ saasi ci maanaam yéefar yi yonent bi sallallahu alayhi wa nag daa di pund daa di jaxasoo bi daa di commencé nag ah ku ci nekk nag fu nekk nga commencé fa waaye xam ngeen ne borom bi tabaaraka wa taala booba xam nga ne ñoo xam ne junni lañ ñi nekk ñetti téeméer xam nga ne yàlla foofa la tàmbalee di farle ndax dafa won maanaam jullit yi ne junni bële mu tuutal ko ci seen bët bañ mel ne ñoom ci téeméer lañ yem waaye itam yéefar yi itam ñu xeeb lool jullit yi bu ko defee parce que li ñuy wax ne koo xeeb rek mu yab la waaye ñu daal di commencé nag xeex bi daal di bëgg a ñëw waaye saaba yi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow day comme yow moom yow yaa yor mission bi yow da ngay ñëw rek ñu mbaaral la ci gannaaw nga taxaw foofu bu ko defee ndax ñoon yow ñun bu ku ci dee itam dara la dul wàññi l'islam mais yow bu fekkente ne laal nañ la mën na andi joxe ñu daal di koy mbaaral mu ànd fa Aboubacar sadiq radiyallahu anhu commencé nag di commencé wax ak borom bi tabaaraka wa taala mu koy wax allahuma in tuhlik hadihi al min ahli al iman al yawm fala tubadu fi l ardi abadan muy tàllal loxoom yi commencé ñaan wax ne yow yàlla day bu fekkente ne lim bu ndaw bii ñetti téeméer yii bu fekkente ne day seetaan nga ñu ba ñu rey la yaa xam naa ne day kenn duutu la jaamu ci kaw suuf ndax ñii day ñoo lay jaamu te ñoom ñoo war a àggale mission bi ba mu dem ci àdduna te kon nag yow yàlla boo ñu seetaanee bañu ñu gañee ñu kët du baax ci ñun yonent bi daal di jóg julli ñaari ràkka tàllal loxoom borom bi tabaaraka wa taala léegi ba mu ko defee rek am gëmmeentu daal di koy dikkal mu daal di ne Aboubacar abshir bégal yàlla day wone na ma ne day ñun day sa yuhzamul jamu wa yuwalluuna dubura maanaam mbooloo mu bayri mii day li muy rëy rëy maanaam danañ leen duma te ñoom ñëpp danañu woon gannaaw yàlla foofa itam daa di fa xam nga ne yonent bi ñaanam goobu googu fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaa'ika murdafin yàlla daa di wàccee junniy malaaka gannaaw loolu mu indiwaat yeneen ñaari junni muy ñetti téeméer mu indiwaat yeneen ñaari junni muy juróomi junniy malaaka yoo xam ne ñoom xamuñu woon naka la ñuy xeexe waaye borom bi tabaaraka wa sax moom moo renforcer jullit yi maanaam cinq mille combattants yoo xam ne yépp malaaka lañ ñu war leen a jàppale ci xare bi léegi bu ko defee ñoom bi nga xamante ne xamuñu nu ñuy xeexe parce que ay malaaka la yàdd yàlla daa di leen fadribu fawqal anaaqi wadribu minhum kulla banaanin mu wax malaaka yi ne leen seen jaasi yooyu dagg leen ci bopp yi dóor leen ci kaw loos yi te itam fépp foo xam ne ab mafsal maanaam fépp fu articulation nekk ci loxo rek dóor leen foofa ñu rot xam ngeen ne nit ak tànk ya bu fekkente ne da nga dagg loxo yi duutu mën a jàpp jaasi waaye boo daggee tànk ya duutu mën a taxaw malaaka ya def noonu moo tax sax ñoom ñu ne dëgg-dëgg li leen doon xamal ne daal badri mii am na ñeneen ñoo xam ne duñu ay nit ñu ànd ci xeex bi parce que dañu wax ne Abbas wax na mu ne dañuy gis ne dangay ngay tiim benn maanaam yéefar boo yëkkatee sa jaasi bala ngaa dóor rek nga gis bopp bi wadd te yow yow mi jàkkaarloo moom wóor na la ne dóoragoo ko jaasi ji fekk ne booba malaaka yi ñoom ñoo leen doon dóor bopp yi de dagg loola bu ko defee noonu la yàlla jàppale jullit yi ci xeex boobu malaaka yi itam nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne xeex bi metti na tàng na moom itam mu daal di ngëpp ngëpp boo xam ne daf koy def ay doj yu ndaw neen bi mu ñëwee ci julli maanaam yéefar yi wax jullit yi ñu gëmm léegi biñ ko defee rek mu daal di jël tib bu sànni leen ko maanaam ku ci nekk benn fepp suuf xam nga ne kuy xeex fattu te fattu ni mettee waaye bépp yéefar bu fi ne woon keroog rek maanaam suuf dugg na ci sa biir bët ñoom ñëpp kenn xamatu ci looy wax kenn xamatu ci fooy taxaw xattan mhm. xataa maanaam ñom ñep ñu gëlem kérok yonent bi sallallahu alaihi wasallam def na fa ben ibnu ishaq manam akasha ibnu mahdan al Asadi. neena bisu badr bobu dafa jëloon ben jaasi di ci xex ba jaasi ji dam mu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ko fekk yonent bi gis ben bant da ko yëkëti rek ne ko am mu jël ko mu nekk jaasi jo xamne mo gëna gudd ci jaasi waye mo gëna ñew ci jaasi mu dem di ca xeexi booyu borom bi tabaaraka ko taala maanaam def jullit yi keroog ñoo gañe moo tax maanaam jaasi jooju ñu ngi ko tudde al awnu ba suñ bisu tey bii maanaam loola nag mu continuer di ca xeex ba xaru xar bu ridda ca la ko bàyyi maanaam ca lañ ko reye yonent bi sallallahu bi nga xamante ne pare nañ xam ngeen ne أمر صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين أن يطرحوا في القليب فطرحوا فيه maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne keroog jàpp rey nañ juróom-ñaar fukki nit maanaam soixante dix personnes ci yéefar yi jullit yi quatorze personnes rek ñoom ñoo ci faatu ñoom ñu daal di leen di rob maanaam yéefar yi ñu sànni leen ba mu des manam biñ leen sànne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ci na ëllëg sa mu ñëw tiim leen ndaa di wax ne yaa fulaan yaa fulaan yaa fulaan ibnu fulaan hal wajadtum ma waadakum rabbukum waadakum allah wa rasuluhu nee na xaqan fa inni wajadtu ma waadani llahu xaqan wa qaala sallallahu alayhi wasallam sallam yaa ahla alqalib bisa al ashira kuntum kadabtumuuni wa saddaqatni nnaas nee na fa qaala umar ya rasulallah kayfa tukallimu ajsaaman laa arwaaxa lahum yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu fekkee juróom-ñaar fukki néew yoo xam ne yépp ay yéefar lañ mu daal di leen di téem daal di leen mel ne ku leen di kokkuli di leen wax ne leen yéen day ndax la leen yàlla akub yonentam dëeloon gis ngeen ko ne day danañ leen duma danañ leen rey maanaam te ku ànd man danga am victoire man de la ma yàlla doyloon man gis naa ko yéen a ngi nii tëdd waaye maa ngi leen di xamal ne yéen ñii de yéenay samay mbokk waaye da ngeen maaf weddi waa ansaar yii nga xam ne ñu ngi ci madina bokk ñoo man dara daanaka ñoom ñu dëggal ma yéen ngeen daq ma ñoom ñu fat ma yéen ngeen weddi ma ñoom ñu gëm ma Omar daa di ne ko ah yow yow mi yàlla yónni nan ngay waxeek ay maanaam yaram yoo xam ne àndul ak ruux nee na yonent bi salaan wa sallam ne leen lii may wax day gënu leen leen koo dégg ñoom dañoo mënula tontu kese waaye lépp lu ma leen wax rek dégg nañ ko moo tax wa qaala ibnu marzuq wa min ayaati badrin albaaqiya maakunt nee na bokk na ci aaye badr boobu yoo xam ne des na ba tey nga xamne nenañ badr kep ko xamne koo nga màkka bo fa rombe da nga don deg ay tabala yo xamne dañ ko fay teug mom mune man day dama ko nekkon ku ci amone sikki saka waye bés bama yàlla dimbele bama ñëw fa kérok bama ko déggé la xamne li ñuy wax ci badr kat lu dëggu la moo ne wa hadith shada yawm badr min al muslimin 14 rajulan sittatun min al muhajirin wa thamaniya min al ansar bisu badar boobu nag fukk ak ñeent ci góor ñoo daanu ci jullit yi juróom benn yépp ñoo gàddaayoon ànd ak yonent bi waaye juróom ñett yépp ci madinatul war lañu dëkkoon maanaam ansaar lañ waaye rey nañ ci yéefar yi juróom ñaar fukk jàpp ci juróom ñaar fukk prisonnier bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pare na ci badar nag maanaam ñu toog fa daanaka mën nañu ne xare ba dem na ba ramadan di jeex bis bi njëkk ci shawal maanaam weeru korite la yónni zeyd ibnu xaarisa bashiran fa wasalal madina mu àgg madina ci bisu yo ci yoor yoor moo tax keroog ba nga xamante ne agsi nañ rek dafa fekk maanaam ña robi woon doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ruqiya moomu nga xam ne moom la mayoon Seydina Ousmane keroog Ousmane loolu sax moo ko tee dem fekke Badar keroog lañ ko robi ba ñëw seeni loxo taq rib muy ñëw annoncé ne kët yàlla lëm leen dëloon ca badar am nañ ko ndax rey nañ juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk seen la nga xam ne amoon nañ ko lépp nangu nañ ko lii daal mooy ci tënk li nga xam ne xëy na waxtu wi moo njat moo tax sax tey gënuñu ko guddal mooy li nga xam ne moo doon xare badar pour wane ne rek muhajirun ak ansaar ñun mënu ñu leena fay ndax kérok ba mu metté nga xamné yonent bi sallallahu alayhi wasallam kessé kese amul ku ko jàppale ay mbokam génné ko dakk ko rankel ko kérok ñom ñoo taxawon ca gannaawam motax pendup saaba yi sax nit lu mu reey reey maqama mënu caa jot kon képp ko xamné bëgg nga dugg bo lambé ci 33 33 867 52 52 da ngeen jot seen mbokk Aboubacar Mbodj fii ci Safina efem ñoo ngi leen di wax yal na yàlla nangul ñu kooru jàmm ñu xam ne nag ñii ba ñuy xeex maanaam booba ci plein weeru koor lañ fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weeru koor mais teewul gis nga dañoo woor di xeex ngir rek baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mën a sax kon ñun ñii nga xam ne nag ñun dañu ñëw fekk yëf yi neex mokk lépp yomb ah xam ngeen ne ñun kon bu ñuy woor waruñoo am lenn lu ñuy wax lu dul góor góorlu te yàlla wax yonent bi nee woon nañ génn nañ ci gàddaay gu njëkk gi di ñëw ci gàdd maanaam gàddaay bu ndaw bi dem ci gàddaay bu maanaam mag bi gàddaay bu mag bi nag moom mooy mujahadatu nafs moo na mooy xe nga xeexe sa bakkan xam ngeen ne xare badar sax keroog bi nga xamantene manam julit yu tok nañ xam nga ne yonent bi kero sallallahu alaihi wasallam fa mu njëkkoon a placé foofa dafa baaxul woon ñu amuñu woon ndox maanaam teen ba ñu jege ñu sori ko waaye xam nga li yàlla toujours uh-huh. aha salaamaaleykum allo waaw waaw asalaamaaleykum wa aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kontaan naa maa ngi doon déglu émission bi. jërëjëf Ndiaye sëñ Adama Ndiaye. alo allo way Adama. ñu maa ngi doon déglu émission bi. Ah, yaa ngi ko doon déglu jërëjëf waay. kontaan naa si trop. jërëjëf. يالنا يالا يا خام خبي امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين يا سيدنا محمد صلى يا عليه وسلم امين درجه فا يا يا يالا وانا خيخو يا بي نك ناتلي آه. يا لا الحمد لله يا يا يا يا يا يا يا يا جناك دي ني كاي ناتلي نون رك لا مي ني لا الحمد لله درجه فا سي سيرن كي سي واجي سيرن كي فا غباخ دي الله جي مختار جان واو الله جي مختار جان تي ال مانسو غراند مسكان ال مانسو اه نون لا daan fi lay alhamdullilah kon nak jërëjëf kontaan naa trop trop trop trop jërëjëf jërëjëf ya yal na yàlla xam-xam amin ya rabbal alamin xam fi yoo guddi nag jërëjëf dinaa la woo sama affaire boobu insha allah bu soobe yàlla yàlla jërëjëf jàmm defal la afiya defal la saafara sëñ adama ndiaye dëkk fële ca karaak di fidèle auditeur kon ci 33 867 52 52 képp ku bëgg a dugg boo ci wootee dang ñu jot mhm. maa ngi leen di wax ne keroog xam ngeen ne bi nga xamante ne ña ngi waaj xeex bi gaa yi allo salaamaaleykum ah sëñ Aale Diop ah, Diop Diop Diop ngeen def rafetlu émission bi waay ah alhamdulilah jërëjëf waay am na solo trop ah, rek yal yàlla bi amin yaa rabbal alamin xam incha allah kontaan nañu bu baax yal na yàlla barkeel la yal na yàlla may la jàmm defal la aafiya nuyul ñu sëñ la Ndiaye bu baax a baax a baax ne ko koy gis nañ tàndarma ja ña ngi koy sant di ko gërëm yàlla na ko yàlla fay jërëjëf baax alhamdulilah jërëjëf yàlla wéral defal la téeméeri at ak lu topp. amiin yaa kooku sëñ Aale Diop la ma nga dëkk fële di suñu jarbaat dëkk ca Louga yal na yàlla wéeral cëram te yal na ko yàlla dimbale jàppale ko kon ñu ngi fii rek toujours ci Safina FM 98 point 2 seen mbokk abu Aboubacar Mbodj moo doon waxtaan ak yéen képp ku bëgg a dugg des na tuuti rek 33 867 52 52 maa ngi doon wax ne keroog xam ngeen ne bari na euh, jullit yi fa ñu nekkoon amul ndox yàlla ci kéemtaanam bëgg leen a dimbale def leen rek fi ñu teg ñoom ñépp ñu nelaw bi ñu nelawee am na ci sax ñoo ci xam ne ñu gént maanaam ne am janaba waaye bi nga xamante ne loolu dal na leen maanaam seytaane daa di ñëw rek daa di bëgg a buruxlu foofu ne leen waaw yéen yéen yonent baa ngi leen bëgg xeexloo suba te yéen ñii am na ci ñoo xam ne sax am nañ ba war nañoo sangu jana ba te amuñu ndox muñ sangoo yéen a ngi nii wóor na leen ne mar ngeen di fanaane te bu ngeen xëyee suba naka ngeen di taxawee ci kanamu maanaam ay noon di xeex ak ñoom waaye borom bi tabaaraka wa xam ngeen eh, yàlla ma ngi wax ne Uh, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum bu ngeen dimbalee yàlla maanaam yàlla moom dimbalam moom mooy rek nekk ci santaaneem nee na yàlla ci boppam moo leen di dimbale dëgëral seen tànk keroog yàlla taw taw bu baree baree bari ñoom ñépp ñu sangu ba wut seen ndox denc sangu def li ñu bëgg a def lépp xam ngeen ne foofu booba suuf sa maanaam banqaleñ la yàlla daa di dëgëral suuf sa ba nga xam ne fooy xeexe man di daw ah foo foo taxaw mën a déplacé wu déplacement bu baax loolu lépp yàlla moom mooy rek lam dëloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen danaa leen dimbale te yéen ay gañe foofa loolu rek la fa borom bi tabaaraka wa feeñal moo tax mu dimbale leen ci taw boo xam ne ñoom sax prévoiruñ ko woon waaye yàlla wàccee fa taw bu baree baree baree bare bari kon gis ngeen ne dal euh, maanaam xare badar moom bokk na ci xare yi nga xam ne ñoom wax dañ lay xamal ne daanaka islam ci la yëkkati ko parce que ci la yéefar yi daanu ba xam ne léegi kët la woon ca màkka nga xam ne dañ doon noggutu yée jullit yi lu nekk ñu def leen ko tay ji kat xam nañ ne léegi yàlla kat yëkkati na diine islam te xam ngeen ne yàlla kat képp ku mu yëkkati kenn du la mën a xare badar ca la islam gën a commencé yëkkatiku jullit yi ñoom itam seen xel gën dal seen xol itam gën a toj ci xam ne borom bi tabaraka taala kat lépp loo xam ne wax na leen ko danañ ci teg seen bët lépp lu leen yonent bi wax danañ ci teg seen bët moo tax yonent bi keroog sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne xeex bi metti na nga xam ne jaaxle na moo tax keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dafa jàkkaarloo ak jullit yi wax leen ne leen ne leen wóor ne day tey jii day mu ne summa zaharal aynu linnaasi فحرضهم على القتال فقال والذي بعثني والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخله الله الجنة منم يوننت بي keroog بي خيخ بي تانغي مو خول gis جوليت يي سين ليم نيو لول نيك نيت تيمير نيك ني نيك جوني نيت nga xam ne maanaam ñii amuñu benn fas fekk ñee ñoom yor nañ juróom-ñaar fukki fas soixante-dix fas yor sept cent maanaam gëléem te jullit yi amuñu lu dul soixante-dix gëléem yonent bi maanaam xolam moom it yërmande ji nekk ci waaye keroog lam leen wax mu ne maa ngi leen di waatal ci ki nga xam ne bakkanu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loxoom la nekk maanaam ci yàlla mu ne yéefar yii day na leen wóor ne kenn du xeex ak ñoom tey maanaam rey leen walla ñu rey la ñu rey la nga xam ne dangaa taxaw muñ ba génn àdduna te jubluwoo ci lu dul rekk wut maanaam payug yàlla te wone woo gannaaw bañ lay rey keroog yaa ngi jàkkaarlook noon bi waaye dawuloo bañ rey la nee na képp koo xam ne dañ laa rey te fekk yaa ngi jàkkaarlook yéefar yi di xeex lu dul ne yàlla dana la dugal àjjana moo tax umayr ibnul xumaam moom euh, axu bani salama la moom ba xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na loolu fekk ne nee nañ ma ngi yor ay tàndarma keroog dafa daal di jël tàndarma ya sànni yépp daal di ne baxin baxin mhm. afama bayni wa bayna duxu an adxula al janna illa an yaqtulani haulaai summa xadafa samarat xadafa samarat nee na keroog bi yonent bi waxee loolu fekk mu yoroon ay tàndarma di ko lekk daf leen a sànni ne aywa baxin baxin maanaam ah gaawal gaawal ndax sama digganteeg àjjana dara doxu fi lu dul rek ñii rey ma comme yonent bi nee na képp koo xam ne rey nañ la tey àjjana ngay fanaani képp koo xam ne rey nañ la ci yéefar yi safara ngay fanaani man day naa gaawe bokk daa di jël jaaseem commencé di xeex di xeex di xeex di xeex keroog ba ñu rey ko moom mu shahid la yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon moo ko joxoon moo ko doxoon a am encouragé mu taxaw keroog jàmmaarloo ba keroog ca la ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp dañu shahid wax naa la ne fukk ak ñeent lañu rey ci jullit yi waaye jullit yi rey nañ soixante-dix jàpp soixante-dix lii moo doon seen émission makaarimul axlaaq ñu du leen doon leen ko defal tey ci événement bii nga xam ne ñu bari ci jullit yi sax defuñu te attention ndax ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci ñaareelu atu gàddaay yi ci la xazwatu badrin al kubra maanaam xare badar bu mag bi ca la xewe woon yonent bi ak i saabaam yi nga xam ne mooy muhaajiroon yi ak ansaar yi ànd ak moom ci seen jàmbaar ga seen takku ga seen mbokk seen xarit abu Aboubacar Mbodj moo doon waxtaan ak yéen fii ci Safina FM ci 98 point 2 di leen ñaanal kooru jàmm ak ñaan yu ñu nangu ak mboolem jëf ju rafet juñ def ñu ngi nuyu suñu mbokk yépp bay mbooj ca yëmbal ak suñu mag bu ñuy wax pap mbooj nekk fële ca sips ak suñu maanaam euh, waa daara ji nga xam ne ñoo nekk fële yépp ca Anne Maris Grande Mosquée ba ak daara Serigne Mor Diop ca parcelle Parcelles Assainies unité 23 di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan borom bi tabaaraka taala lépp luñ fa ñaan ci dimanche yi yal na ko yàlla nangu góor gi yàlla guddal fanam suñu sëriñ itam imaam euh, Hamidou baan itam yal na yàlla guddal fanam mission bii nga xam ne moom la bëgg def ci lislaam yal na ko ci yàlla dimbali jàppale ko ci ci technique bi ci nekkoon mooy di Mokhtar Dieng di nuyu suñu directrice yitam ñu ba di ko ñaanal borom bi tabaaraka wa yal na ko yàlla dafa réussite ci lii nga xam ne mission bii ñu ko dénk te ñoo ngi ziyaar ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu suñu xarit bu baax bu ñuy wax Abdourahman Jéey nekk fële ca port du colonel ak suñu xarit yëpp maanaam di leen nuyu di leen ziyaar asalaamualeykum wa rahmatullahi wa